salaamaaleykum Serigne bu na mu ngi nuyu waa Sénégal tey nag ma buggoon waxtaan tuuti senegal yi ci mbirum xew xew yi bari yi parce que boo boo bàyyee xel jigéen ñi Sénégal maanaam téeméeri ji téeméeri nit yoo jël ñaari jigéen ñoo ci am kër. ñi ci des ñëpp boo dee xool amuñu kër te pourtant lii jaar ci seen loxo ci xaalis bu fekk dugal na ko fu ñu ko war a dugal konoon réew mi dina jëm kanam waaye seen àddina yëpp yàq lañ ko def nan waxante dëgg. loolu dafa jot ji góor yi Sénégal xam loolu ba ci njëkk mooy dama leen di limal booy dem di jabar misaal liñ lay wax lépp boo xasee ba dugg naa la lii mun a ñàkk lii mënut a ñàkk ba ni sox ba ni jabar ji ñëwee ci biir jabar ji bu ñëwee daanaka foo dee xool foofu la nga fay fere xaalis bu weex tàll lay doon ñëw ci biir loolu euh, xew yi maanaam seet wàcc laax yi mën ay ceeb yi yaa ngi dégg euh, ak beneen euh, war ma sel yi nga xam ne te wala salade yi nga xam moom lañu te pour ci guddi gi bu ñu xëyee suba daal def beneen dékk boo xam ne ne ay salade dafaat beneen mën ay ceeb léegi ngoon gi ñu def ay njogonal sëñ bi xoolal googu moo tax boo dee léegi jigéen ñi boo dee xool xew yi léegi saaru business la moo tax seen euh, teg yi nga xam moom la ñuy def mooy mbootaay yi boo dee xool bu ñu toogee ci seen jataay mbootaay yi li ñuy li ñuy li ñuy wax yëpp mooy kii day am na euh, dama am teggil ma ndax dama am xew sàngam léegi li ñuy teg di dem ci marché bi di ko ji nga xam mu leen di jaral maanaam ñoom ñiy jaay ay keccax wala ay jumbo wala ay natutu wala ay paañ wala ay xam nga yi mel noonu ñu koy jaay léegi ci biir jaay yooyu noonu lu nekk ba bu ñu wàccee ay 100 francs ay 200 lañ ci teg wala ay 500 te réew mi naqari na naqari waay goo xam ne sit nii métti métti waaye goo xam ne sit nii ñu bokk ci ñaar fukki réew juróom yi gën a pauvre sëñ bi nga bëgg a dundee noonu ba kañ tournawaat cant yi daay yi maa ngi dem sama nangam yaa ngi dégg xew-xewaan yi biir yi ci biir dëkk bi yu bokk ak ay xeeti ngént ak céet ak yi noonu nga am chaque jour rek yaa ngi am programme chaque jour ba kañ ngay liggéey ba kañ loolu nag dafa jot pour nit ñi jóg ci loolu man day jóg naa ci man Serigne Ndiaye bu ne jóg naa ci parce que dama leen nettali histoire bu xoromu boo xamante ni sama ñeent juróomi xew la am ba kay ñeenteel bi nag bi mujj bi mooy ñeent bi parce que céet ak ñeent ñeent xew bi mujj ma ne ko meer mun a am ne ko du ma xew mu ne ma haa mu ne ko du ma xew mu yaakaar damay caaxaan bisu céet ngént li daal di jot ma daal dem jënd sama xar mu yem daal di dem jënd sama euh, fukki kilo ceeb ak juróom ak la ci war a dem ba ma pare ma ne mu ne ma ah léegi nag nangam ma ne ko hey koo woo su mu ne ma mbokk yi nangam nangam naa ma ne ko koo woo bu ñëwee yaa ko jox mu lekk koñ bi nag nangam nangam boo ñëwee sa dëkk man leen hey dama ne. fukki kilo ceeb laa jënd ak juróom ndax si nag moom bu ko neexee na woo ay mbokkam moom bu ñëwee dinaa leen teral waaye man sant mu ko mu mu mu ñëw bu ko neexee ñooy mën leen a woo ñu ñëw mais bu ñëwee dina lekk ndax man ak ceeb moom war na war na leen ñi ñi jot a ñëw mën na leen a mën na leen a kii loolu nag ci naa fekk yi nekk ci koñ bi daal di jóge fee ñëw ah sa waajur mu ne am juróom-ñeenti ba koy fukkal nga ba koy ma yow loolu bul la ko waxee bu leneen loolu ñu ci war maa tegal mooy wax ko ak yàlla ndax man waxuma la nga jur ma nan waxante dëgg man waxuma la nga jur ma parce que euh, nit ñi li lay faral di tiiti mooy moo la wax mu juróom-ñeenti yoon ba koy fukkal ngee muy bëgg a dee man maa la wax nga jur loolu koy wax ko yàlla ndax ndaxte loolu yàlla nga ko war a waxal ndax man waxuma la nga jur ma parce que man bu fekkente ne da maanaam mbir loolu yu mel noonu loolu da nga koy sant yàlla sa borom mi nga xam si ni moo la moo la boole amum waaye bul fi nekk naa moo la ëmb juróom-ñeenti weer di nga ko di fi yëf parce que Sénégal doo tàmm suñu àdduna yëpp toppee la toppee toppee toppee toppee ba weex bi jaaw mais ni da ngay war a doon sa bopp nag jël say responsabilité yoo xam ne si yu bopp parce que àdduna bi réew mi métti na métti waay goo xam ne xam na ne réewum Sénégal juróomi at yi fukki juróom-ñaari at yi métti na ñuy war a dugg yeneen juróomi at yoo xam ne surtout ni Macky Sall moo ko pare góor de mais góor de góor de maa boobu noonu man day gisuma ci sama bopp samay ña ñi ma xam ma gisuma ku ko xam ku ma xam ku ci gis boppam wallaahi xasim dëgg laay wax mais loolu doo xool ni nga war a dundee nag te ba mais jigéen ñi seen àddina yëpp kaw la léegi nag da ko wàll ba wàll wàll ko tout tànk yi jigéen ñi ndaw yi ak ñi ndaw ñi góor ñi ak ñemee noonu loolu nag dafa war nekk loo xam ne surtout lu jeex la léegi nag li ñu ngi xewal leen ay xeeti sol yu bokk yaa ngi dégg otage yu bokk tiset yu bokk góor ñi nurale mais mel ni mel ni réew mi dafa bari xaalis mel ni réew mi alal ji dafay dafay tuuru mais loolu dañ cee war a jóg xew dafa bari góor jigéen ñi ku leen topp doo dem te te te seen àddina yëpp yàq la te xaalis bi jaar ci ñoom jar ci góor ñi mais dugun ko fan ko war dugal parce que liñ ko def yëpp te buñ ci jógee ci nag nga dégg ñu naan la ñaata la te ñaata la ñaata la la euh, ndax dal ñaata nga ko jox ñaata ma la la amee ci kii ba ah man de ab xartum la ma jox man de ab junni la ma jox man de 3000 francs la ma jox nag wam yor nag nag wam rey de moom nagu yooy la moo ah xar ma kay nangam nangam moo eh, ah teg dina ko nangam de xartum yi kay la ma sol yaa ngi dégg dem dem solo ba solo bu ñu oto yi yaa ngi dégg fay oto yi dugg na fii génn fii fii fii mais mais sëñ bi Sénégal nañ jukki loolu loolu daf ci war a jóg moo tax bu na moo tax gis nga bu na réew mi neex na naqari na kenn du ko mën a gëm parce que li tax du ko mën a gëm mooy xaalis bi fan ko war a def la nga ko def mosu leen a gis réew mi dund nii. amul ci àddina amul amul ni ñuy yàqee ni senegal kese la am ni ñuy xewee nii senegal kese la am man day jug naa ci man jug naa ci man Serigne Ndiaye buuna jug naa ci lii ñu nekk ni fas yéene lépp lu may def def ko te yàlla tax di ci ñaan pay yàlla mais pay doomu aadama yi moom ba mu aadama bis boo doon toppee. yaa ngi dégg maanaam da liggéey liggéey ngistal parce que lii mënul ñàkk lii da ngay sa sa sac lii wax ñaana sac ban sac man mayu ma sama bopp yàlla moo ne bakkan ak wërsëg mi ngi ci loxo yàlla nekku ci loxo doomu aadama sababul rek lii ànd lii nga xam ne si moo toll sama wërsëg sama dund maa ma naa naa ko def waaye te bañ ko yàq mais bëgg koo yàq te doo dégg imaam yi ci xutba doo dégg ku ci wax yàq yi léegi dafa bari nan ko jël teg ko fee loolu su ko def réew mi dina naat réew mi dina jëm kanam nañ waxante dëgg yàq gi dafa metti waaw yàq gi dafa metti lépp jigéen ñi ñu ko yóbbi jigéen ñi nañu dimbale ngir yàlla ak yonente bi sonn nan góor ñi sonn nan lu nekk teg ngeen leen ko lu nekk ngeen mënut a ñàkk ah kay mën naa ñàkk du dëgg mën naa ñàkk nañ waxante dëgg mën naa lu mën a ñàkk la yéen ñu ko bëgg teg du ko nangoo teew ku ko nangoo teg nag yaa yaa moo tax xale yaa ngi dem ci gaal yi xale yi ay ay ay buñ xëy su ba ñoo soq ko dina wax lu set loo yor joxe ko def loo yor joxe ko toog ah ñan leen nii nangam nangam xam nga ni da ngay kilifa nangam nangam nangam ba kañ ba kañ mais jullit waroon natal asaka loo man dem dimbale ko say waajur te yor sa njaboot yor gu yor gu yor gu baax waaye na yeneen yii nga xam si nii kon bi bëgg la koo tegaat wala waa nit ñi bëgg la teg lànk leen xale yu góor yi am leen fulla am fayda te bàyyi seen euh, seen ñàkk fayda gii nii ngeen nekkee parce que jigéen ñi dina leen dina suul de ngi ni dina leen suul benn ba ngeen jeex tàkk ñoom ñu def fi wut góor gu baax teg ci seen wet nan waxante dëgg